ci wàllum famille ca kaw pas deret nii ay mbokk lañ seeni famille. kon xalaat nga du am lu ñaaw. lu ñaaw mooy lan Sonko Sonko Sonko xam nga boo talee liggéey réew mi doo fi tale nekk di toppante. waaw ah, ndeysaan dëgg fi mu ne ñun procès bi mu ñu tegal ñu ñëw ci procès bi dañoo gënal di fayantoog di toppante ku muy toppanteel. Amadou Sall nga baal ma Macky Sall ak njabootam ku ci mel ni Amadou sàll mhm. ñooñu. bëgg nañ fee nekk di liggéey réew mi mm-hmm. même bu seen papa wàccoon mm-hmm. bëggoon nañu tamit ay am ay ambition politique di politique comme ñëpp mm-hmm. Amadou Sall exemple laay jël wala wala kan Ablaye Wade ni xoolal Karim milliards yi jaar ci loxoy Karim du jaar ci Amadou Sall du jaar ci ko milliards yi jaar ci loxo Karim te Karim a ngi nii tey soxla soxlawaat réew mi gis-gis yi foofu la mais pas ay ñëw di taqal Sonko lii nii yàlla tudd na moom Sonko ci pale bi. d'accord muy deux mille vingt quatre ak deux mille soixante man sonkoo maa ko gis ci pale projet Sonko bi itam euh, gëm nga ni quand même allah kulaal bu ko Sonko doxal itam keneen doxal ko. man dama doon wax loolu xam nga keroog dee naa la fi sonkoo bu sampoon Bassirou jommay fay mhm. sax élection yi dañ koy gagné. ci kàttanuk yàlla loolu moo am. waaye Sonko fi mu ne dañoo talul kenn ku muy samp ku dul Sonko na sonkoo samp. ba ba pare. man fi mu ne. procès bii fi mu ne fi mu ne nga nga baal ma nag de man Ousmane man Sonko laa gëm ak procès am mais gars yi gëmatuma ci kenn hmm. déedéet. nit ñi xam nga ne bañuñu Macky Sall mais dañoo gisul Macky te loolu laay bañ fal Sonko ba pare naan at yow yaa taxoon ma fal Sonko la ñuy waxal direct nga xam ne Sonko bu faloo moom mooy ñëw di ñu rendre compte. comme nii mu koy defee bu amee lu ko metti mu génn wax ak ñun yàlla bu mu ñu nëbbatu di wax ak ñun olof ba ba tey Sonko discours yi fi mu ne olof lay wax ak ñun bu faloo yàlla na wax ak ñun olof. ñu naan li muy génn dafa bari. dafa parce que génn googu nag moo ko moo ko may lii mu am tey dëgg la man yéex naa comprendre ne génn bi yéex naa comprendre mais nag ay ndaw boo leen bëggee dimbali da nga leen a war a jege. suñu bàyyi chaque jour ba jamonoy baax heure chaque ngoon dañ daan dajeek ñun ci péncu mi di waxtaan ak ñun ci lañ gënoon a baax mais bu waxtaan amatul fi ne Sonko waxtaan wi bi mu ko ubbee euh, ndaw yu bari ci lañu yeewu yow xam nga ne man bokk naa ci ñi gën a dëgër bopp ci réew mi man man pour ma gënu procès rek garaawul man man sawaay waay nongob sëñ Saaliw laa damaa costé. mais da ngaa seet projet bi ba gis. dama ko dama <laughs> ko doo dugg ci dara te seetoo ko ah <laughs> ñu waxtaan nag euh, vraiment doo dugg ci dara te seetoo ko da nga seet procès bi quand même seet mbiri Ousmane Sonko ba xam ne. yëf yi fii la nga soog cee nekk quoi. waaw xam nga loolu. loolu loolu mooy bëgg réew mi rek bëgg réew mi rek fi mu ne man li ma gën a li ma gën a yitteel mooy moo tax Ousmane Sonko damay sàcc wax ko balaa ma koo fàtte yàlla bu mu ñëw man bëgguma mu ñëw ci porose bi. loolu laa doon ñaan maa ngi ko koy ñaan direct di ko ko ñaan. président bañ ñëw le 23. le 23 bi bul ñëw toogal maa ngi la koy ñaan mosuma laa ñaan dara nag te lii ma lay ñaan maa ngi la koy ñaan nga toog am nañ kilifa yu baax yu may gis ñuy ñaan pour nga ñëw ci procès bi nangul naa leen nag ñoom seen xam-xam bu rafet dama koy tudd sax Cheikh baara njaay waaw nee na moom mi ngi koy ñaan mu ñëw waaw Cheikh Baara jërëjëf ku baax nga gis nañ sa taxawaay lu rafet ngay wax lu ama am solo ngay wax seex Baara jërëjëf waaye damay ñaan man président Ousmane Sonko bul ñëw Ousmane Sonko man bëgguma mu ñëw ci procès bi te maa ngi koy ñaan na toog président Ousmane Sonko maa ngi lay ñaan procès bi nga toog bii lakkaañ kañ 23 maa ngi lay ñaan nga toog le 23 bi dafa diis te maa ngi lay ñaan nga toog président Ousmane Sonko maa ngi lay ñaan nga toog le 23 bi dafa diis. man daal loolu laa lay ñaan ci kat ci yàlla ak kattanam. mais sëñ maa ngi lay déglu. naka euh, euh, ngeen di bokkee euh, gis-gis wala bokk fu ngeen nekk bokk ci yoon yi comme ku mel ni. waaw du du ñàkk gis ne Sonko dafa a ñëw yow nga gis ne Sonko daal boo sañoon du ñëw. waaw moom xëy na xëy na moom loolu nekkul nekkul lum seet moom da koo ñaan da koo ñaan rek waaw te man lii. lii dama koo seet man man ah man am naa seex Baara dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa ñaan. ma ne damaa ñaan Ousmane Sonko maa ngi koy ñaan procès bi yàlla na toog Casamance yàlla bu mu ñëw te Sonko man nag boo ko xamee boo ko xamul waaw jërul sax ma cay yegg waaye daal damaa bëgg nga toog. mardi bii di ñëw bëgguma nga ñëw dakaar président bëgguma nga ñëw Dakar mardi ak li ko wër maa ngi lay ñaan nga toog maa ngi lay ñaan nga toog ba yoon wi gën a leer lii maa la ko adressé direct. da nga ragal man sa rakk ay jàmmarloo da nga cee ragal sa sa sa sa sa sa lépp waaw ku lay protéger rek man maa ci war a jiitu te man maa la ñaan nangul naa nag gaa yu baax yépp seen ñaan yi pour nga ñëw waaye maa ngi lay ñaan nga toog mu toog Casamance maa ngi ko koy ñaan mu toog ci la 23 bi lii rek laa am nag sama kàddu dëgg la guddul waaye bu dee xam naa ne basaratul xal bi mi ngi ci yow te xol yaa ngi gisee alxuloo bu tataraa mm-hmm. fa inna mahal xusri yusran inna ma'al usri yusra alors sëñ Mara balaa ngay dem ma jëlaat kenn koo xamante ni moom itam euh, def na seede keroog ci sañ euh, Mara Niass allo salaamaaleykum. allo ñoom dañ maa bëgg rek. salaamaaleykum. Hmm, procès bii. waaleykum gis naa la keroog nga wax ni yaa ngi ci Feeling Dakar gis naa la keroog nga euh, wax ni sëñ Mara Niass waxoon ne ni am na ay pas dinañu topp Ousmane Sonko. ndeysaan. Uh-huh. waa dëgg la. Mhm. dama gis ay mairie Casamance kër ak ay mairie yëpp génn. maa ko gis de. wax dëgg yàlla ñu ngi laa si yaa sëñ Mara di la topp nag toujours. jërëjëf soxna si xam naa seen taxawaay ci man yow rek la ñuy topp toujours ma wax ko Bamba. ay waay jërëjëf. su la géejee su la géejee invité sax ma topp ko si. wallaay maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi jéggalu ci loolu. maa ngi jéggalu suñu may rek ñoo la ñoo bëgg a gis wax dëgg yàlla. waaw maa ngi nii tey ñëw naa xanaa mm. gisoo tey mm, sama kab bu rafet bi nee ko xanaa la ziar nee ko xanaa gisul tey kab bu rafet bi. <laughs> alors di ndokkeel suñu soldaar yi. Euh, ñoom itam macha allah ñu ngi. Euh, jërëjëf DJ maa ngi leen di maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñoo tax may sonn. te xam naa ne xamante wuñ non xamante wuñ déedéet barke alxuraan xamante wuñ DJ. Uh-huh. moo tax lu baax ak lu rafet rek am solo gis nga sonkoo bu ma naan damaa bëgg mu toog Casamance. Mm-hmm. ci mardi bi man Sonko bu benn baat bu naqari. Mm-hmm. bu ma déggee nit wax ko ko walla mu jëmale ko ni sama ni sama xol bi di def moo tax sonkoo mhm. sama gis gu ba bariwul de manuma dara de awma dara yàlla rekk a man yàlla rekk a am waaye nag juboo naag suñ boroom tey Sonko yow laay waxal président man juboo naag suñ boroom tuuti maa ngi lay ñaan nga toog le 23 bii mardi maa ngi lay ñaan nga toog si gën soor. ñu nag vraiment. Euh, dama koy ñaan lu tax nga wax ko dama koy euh, ñaan da nga gis ay euh, da nga ci gis. jàmm. non non du question loolu sax du question du question dama cee gis lu dul jàmm déedéet du loolu du loolu lii man en tant que mbiri vie privée maa ko ñaan mu toog te maa bëgg mu toog damaa bëgg mu toog foofu bala 23 bi jàll te gis nga. dafa am lu ma leen wax dangeen koy fowe gis naa ñuy rax ñuy dugg ci dëkk bi te dañ danañ sëlfaañe ay bërëb moo tax senegal euh, ngay alerter rek de ñu war a wax nañ wax Sonko le 23 bul ñëw toogal maa ngi la koy ñaan man nag ñaan la rek laa man te maa ngi lay sonnal di sonnal réew mi maa ngi lay sonnal di sonnal réew mi te mënuma lu dul wax nag te fu ma xam ne bu ma jaaree dagaan la ko fa rek danaa ko def aw ma nag waaye depuis deux mille vingt et ba tey maa ngi ànd ak yow lu ko jiitu sax laa la wax lu ko jiitu mën naa ne deux mille lu ko jiitu ba tey maa ngi ànd ak yow ànd gi nag mooy sama sijaada sama kurus mu néew mu bari maa koy liggéey saa su ne di ñaan yàlla sàmm la ak procès bi ay waay toogal la 23 dimbale ma bul ñëw dimbale ma rek bu ma mënoon leneen lu ëpp lii danaa ko ñaan waaye lii laa man diis na ci man nag ma wax ko direct waaye réew mi fi mu jëm doy na waar daanaka dangay dem ba sax da ngay bëgg a noppi waaye boo noppee rek ñu wax ne nangam. waaw léeg-léeg ñu ne ku noppi complice nga. wallaay moo tax nañu nangul kenn ku ci nekk fa nga jëm kenn ku ci nekk ñu nangul ko gis-gisam te bañ a saagante bañ a xasante kii saaga sonkoo Sonko dafa am dafa dafa dafa am dafa am famille. kii saaga président ba ci président Macky Sall xam nga ñun li tax nga xam ne Sonko ànd ak